itam euh, maanaam mbër la euh, ci euh, laaj njiitu réew mi Abdourahmane Diouf lañu koy wax docteur Abdourahmane Diouf jiite parti bi nga xam ni mooy awale mu nekk président bi moom la ñuy recevoir mbokk yi tey ci seen émission Faram Facce ñu am ci mbégte lool maa ngi lay nuyu docteur Abdourahmane Diouf. <coughs> waaw asalaamaaleykum Pape Ngagne Ndiaye maa ngi lay nuyu di nuyu téléspectateurs yi di nuyu internautes yi. di nuyu képp kuy sénégalais yaax boo xam ne yaa ngi ñuy seetaan. di kontaan trop nag ñëwaat ci yow xam nga yow moom suñu waxtaan day neex. tout à fait euh, je sais que sénégalais yi yàkkamti nañ ko. Mm, dëgg la et tey dinañu waxtaan loo xam ne moo jëmalee sénégalais yi kanam. Mm-hmm. bismillah gis naa nga dóor as ci Abdourahmane bi. gis naa gars yi sax di ci di ci di ci challenge. Uh-huh. pour tebbi as. voilà. lu di loolu. waaw loolu mooy mooy slogan bu bees wax boo xam ne jeunes ñoo ko génnee. Euh, dañ naan euh, sànni sa carte tebbi sa as xam nga bon yàlla dafa def nit ñi docteur Abdourahmane Diouf lañ ma xamee. mais en réalité sama tur El Hadj Abdourahmane Diouf la. ñu may woowee AAS donc ñi ma xam ñëpp muy Rufisque muy université muy école ñëpp AAS lañ ma xamee. AAS bi nag moo yéex a ñëw ci langue politique gi. mais as c'est vraiment la non affectif te puisque tam dañu jëm ci jeu élection présidentielle boo xam ne affaire carte la te carte moom as moo ci mën moo xam mooy as de pique bi wala as de cœur bi xale ne bu ñuy démarrer parrainage bi jëmale ko fii ba mars 2024 loolu mooy seen slogan sànni sa carte tebbi sa as ma leen ciy jàppale aussi. d'accord euh, mais jàppaloo ni euh, xaw ma croquis lañ koy waxee xaw ma naka la. Mhm. c'est-à-dire li mu li mu ñuy ramener ci affaire de carte affaire de mariage affaire de de est-ce que yaakaar nga loolu itam lu lu symbolique la par rapport ak li ñuy wax nii nga xam ni moom mooy laaj njiitu réew mi euh, tebbi sa aas nga xam ni daf ñuy yóbbu ci euh, ci ci ci genre carte ak yooyu. waaw mais xam nga ñaar yëpp réalité la. Mhm. xam nga élection présidentielle moom carte la. bu ñu voté ba 18 heures dañuy conte kan moo ëppale ay xob. Mhm. donc loolu munoo ko ci dindi c'est une réalité électorale. ay carte la ñuy xëccoo ki am fukki carte ak benn moo raw ki am fukki carte moo gagné donc loolu ñun inventé wu ñu ko. non non non carte kay kenn du ko xob yi la ñuy wax. quand même voilà mais ay mais xam nga ay ah, carte la. waaw waaw mën nga ko léegi nag beneen bi nag mooy as xam nga as tam. c' est ah. pas comme si ma jékki-jékki woon rek ne bon woowee leen ma jéego non as dama ko tudd ñëpp xam nañ ne El mooy as. Mhm. moom la ma ñëpp di woowee. donc xale yi ñoom ñoo def seen jeu ba génne slogan boobu maintenant nag bon adduna bi boo fiy dund. da ngay adapté aux réalité xam nga loolu du lu bon xale yi moom lañ bëgg jàpp nañ ne loolu mooy gën a tax ñu xam seen produit mën na leen ah bismillah xam nga docteur bi tam dafa diis quoi docteur moi je suis très fier d'être docteur en droit mais du loolu laay jiital. man ci politique ñëwuma ne ah man kat maay docteur Abdourahmane Diouf maa xam maa jàng maa mën fal leen ma. pourtant nag ci loolu lañ lay xaar de xaaruñu la ci pom yi de. xaaruñu la ci carte gi de. c'est-à-dire ci docteur boobu nga wax dafa diis. waaw da ngay war nga xam ni docteur lu mu diis diis réew mi gën koo diis. dëgg la loolu moom tu as parfaitement raison. alors mais léegi euh, terewul man ma nekk euh, ki nga xam ne day saytu ci xam-xam bi ma nekkoon am na candidat yu bëri yoo xam ne mais loolu nekkul handicap ci ñoom du leen yàqal donc mën nga jubal ci li nga xam ne moom la askan bi soxla saytu ci indi ci xam-xam ba ñu ma docteur bi ah moi je suis docteur en droit je suis fier de l'être xam naa ni ma def ba jot ci mais c'est pour diir que rek élection présidentielle nga xam ni nit mooy jàkkaarloo ak askanam loolu dafay ëpp sax partie bi dafay ëpp coalition bi dafay baax aussi nit ñi xame la ci li nga doon te As moom la ma ñu bëri xame boo ko jëlee nga transposé ko indi ko ci champ politique bi dafay gën a yomb

dafa bari par exemple ay maire yoo xam ne buñ la docteur Abdourahmane Diouf bu ñu ma gisee dañ naan waa mi man de docteur sama tànk bi day metti wala sama épaule bi day metti wala démb dama fanaanee saxat alors que man du docteur en médecine euh, docteur en droit la mhm. mais bon tout ça je que c'est sympathique d'accord voilà pour rek lancer seen candidature euh. ku bëgg a wax docteur nga wax docteur ku bëgg wax aas nga wax aas ku bëgg wax Abdourahmane nga wax Abdourahmane mm. li am solo mooy proposition mariage loolu kenn werante wu ko mais dara utiwu ko ci ci ci mariage boo demee risque ñëpp as Diouf lañ d'accord alors uh-huh. alors euh, mm-hmm. euh, ci yow Abdourahmane nga tànn yow <laughs> ah, waaw <laughs> euh, mm-hmm. gis nañu ci la ci ci ci journaux yi rawatina yi nekk en ligne mm-hmm. lu dox ci sa parti politique boobu di awale tout sa diggante ak ministère de l'intérieur li nga xam ni moom moo ci xew lan nga ñu ci mën a indil bala ñuy ñëw ci question yi. ok euh, jërëjëf damay damay leeral leen lenn rek xam nga man dama bëgg doon nit koo xam ne dama honnête dama bëgg doon ko honnête dama bëgg doon ko transparent gis naa ne presse bi yëpp dañu bind ne le ministre de l'intérieur a refusé le récépissé à Abdourahmane Diouf xam nga refusé mooy bañal na ko ko. Mhm. moo tax ma ne la pour des question de transparence damay leeral ne ministre bi binduma ne yéen waa Awalé bañal nañ leen récépissé loolu je le dis par honnêteté parce que loolu mooy tekki ne bind na la lettre ne la ah déposé nga fii pour am récépissé bañ naa récépissé bi mais li am ma nettali ko te di ko ñaawlu te di ko ci woo appel mooy ñun ñu ngi lancé suñu parti le 30 octobre 2021 te puisque dañu nekkoon ay nit ñu organisé fexe nañu ba balaa ñuy lancé même officiellement partie bi dajale nañu dossier bi yëpp yóbbu ko ministère de l'intérieur bu ma juumul mois de juin 2021 lay doon xam nga loolu fi ak weer mu mat ñaari at ci diggante bi woo nañ ñu ci ñaari yoon <coughs> ci ñaari point yoo xam ne bokkul point bu njëkk bi dañ ñu ne yéen kat dañu gis ne da ngeen tudde seen bopp awale les jàmbaar te ñun jàmbaar Sénégal suñu waa armée lañ ko jox mooy suñu ay soldats. Hmm. donc yéen te muy dëgg sax mënu leen tudd les jàmbaar. te muy dëgg tam. moo tax it ba ñu ko waxee. waaw ñu ne leen ñun phrase boobu ñu bindoo ne ñun ñooy les jàmbaar dindi nañ ko xulóow ñu ci. ñu ci pour te dire que ñun jàmm rek la ñuy. d'accord d'accord parce que ñun xam nañ ni. ñu bind les jàmbaar ci statu yi. ñu bañ ko ci bind ñun dañu jàpp ne ay jàmbaar lañ. dañ jàpp ne ay soldats Sénégal loolu kenn mënu ko mais Abdourahmane moo tax coow loolu. mais ñu taxaw ci loolu s'il vous plaît. waaw s'il vous plaît li ma bëgg ñu taxaw ci mooy. Mhm. mais loolu dafa waroon dafa warul woon egg sax ministère de l'intérieur Abdourahmane. Mhm. c'est-à-dire docteur en droit nga wax. Mhm. te wóor na mu ni am na yeneen kàngam yoo àndal. ci sa parti politique. c'est-à-dire bu ngeen di gëstu war ngeen xam ni jàmbaar bi ñëpp ko bokk waaw c'est-à-dire bi. war ngeen xam ni du pour yéen du pour ma sàmba du pour ma demba. Mhm. est-ce que jàppu leen ni itam loolu. Mhm. Euh, njuumte la lu mënoon ñàkk la warul mën a egg ministère de l'intérieur. déedéet du njuumte Pape parce que ñun dañu fier ci lu ñu doon tey Sénégal bu ñuy football les lions lañ ñuy woowee ku mu neex yow nga ni gaynde nga parce que da nga fier ci li Sénégal doon d'accord xoolal mais mais, mais mais pas ci pas ci léegi xoolal mën nga ko nekk personnellement. mais pas ci loo xam ni dafay nekk lu administratif. am na parti boo xam ni ñoom. les républicains lañ tudd. Mhm. pourtant ñun ñëpp ay républicains lañ. tout à fait jël nañ les républicains. am nañ parti boo xam ne les patriotes lañ tudd. dëgg la. pourtant ñun ñëpp ay patriotes lañ te ñoom jël nañ les patriotes am na boo parti boo xam ne nee nañ ñoom ñooy réew mi pourtant ñun ñëpp ci réew mi lañ bokk te jox nañ leen. réew mi bokkul bokkul bokkul benn la rek benn la rek. c'est-à-dire benn la c'est-à-dire que ñun tey. ñun tey slogan jàmbaar. nga xam ni loolu armée. waa xam nga lañu ko lañ ko jagleel. non rien à voir ak leneen ak jagleel lañu ko dàkkantal. lañ ko mais benn la. xam nga binduñu fenn man de gisuma ko bu amee nañ ma ko wax du ci constitution du ci fenn fu ñu bind ne armée Sénégal ñoom ñooy jàmbaar yi binduñu ko dàkkantal la rek. dàkkantal la ah, léegi itam ñun ñu jël ko dàkkantal ko suñu bopp mais nag pour te dire que ñun ni ñu bëggee jàmm awale des fois sax loolu la ñuy xaw a kaañoo buñ ñu ko waxee dañ ko dindi ne leen léegi dindi nañ ko amul coow. mais pour que dire que ñoom des fois dañuy politique suñu frère docteur Babacar Diop bu Thiès maa ngi koy nuyu moom bi ñu fa waxee ne mm-hmm. Gelawaar la tudd mm-hmm. gis nga coow loolu nu mu reyee woon mm-hmm. pourtant bi mu insisté ne bàyyiwul Gelawaar dañ ko obligé bàyyi ko ak Gelawaaram man wóor na ma ne ñun bu ñu ci defoon xeex politique organiser conférence de presse coow ne ñun jàmbaar yi la ñuy tudd kenn du ko dindi kenn du ko dindi waaye xeex boobu ñun moom la ñu talul parce que xeex bi ñu bëgg a xeex. mooy nan la ñuy fexe mais da ngeen koo mënul aussi. Ah, xam nga non non Abdourahmane. mais ah Abdourahmane sénégal yi ñoo lay seetaan. <laughs> waaw non xam nga aussi. c'est uh-huh. important da nga wax da nga transparent danga nga nangam nangam. waaw mais xam nga ni xeex. franchement da ngay wax nitu jàmm nga dëgg la. waaw mais parce que. nitu jàmm laa non non laa bëgg a doon ah d' mais uh-huh. jàmm ñàkk pexe la. parce que tey nee nga Abdou nee nga nee nga Babacar Diop. xeex na ko. Uh-huh. ba téye ko. lan moo la ko teree def. waaw mais parce que bokkuñu approche bokkuñu ni ñuy doxalee parce que xeex pour ñu jox la récépissé walla xeex pour ñu nangul la turu jàmbaar xam nga loolu. soxlawul toj soxlawul marche conférence de presse ngay organiser wax ko par exemple lii nii. man daf ma xaw a jaaxal sax ni mu génnee nii parce que bi may jëkk wax ci problème mu récépissé bi yàlla dogal na kër gi fii laa toogoon wax ko. bi may def émission déclic. début du mois de mais xam nga ñetti weer a ngi noonu pourtant jour boobu jël naa sama temps ak ñoom jëy ba maa ngi koy nuyu expliquer affaire récépissé bi mais xam nga média moom ni may doxee yaa ma ko gën a xam bi ma ko waxee boobu kenn reprendre ko après waxaat naa ko deux fois kenn reprendre ko mais yàlla def bi ma demee Pikine di benn tournée ak benn forum ci inondation yi maa ngi nuyu waa banlieue bi ci laa ko wax am journaliste yu ko reprendre mu mel ni ku nekk actualité alors que du actualité bu bees mais nag loolu bon yéen journaliste ak médias yi ni ngeen di doxalee yéen ko xam mais je veux xeex boobu coow loolu mënoon nañ ko mais gis nga ñun fi mu nekk nii. as doole bi ñu am tuuti dañu ko bëgg a jël def ko ci nan la ñuy régler problème mu sénégalais yi. Mhm. mais loolu moo nekkoon premier point bi boo ma ko baalee. Mhm. ba ñu leen waxee ne jàmbaar yi dindi nañ ko dañ woowaat. nañu ah xoolaat nañ seen dossier mais am na ci beneen point boo xam daf ñuy poser problème. tout à fait ñu ne leen problème boobu ban la. financement extérieur ñu ne financement extérieur. boobu itam ñun xam nañu ne ñoom dañoo juum parce que financement extérieur ñu ci wax mooy ku nekk étranger mënul financer parti politique sénégalais c'est-à-dire que tey un parisien. bu tudd François nekk France waru la mën a jël yónnee la dix mille euros pour nga financer sa parti mais loolu ñun xam nañ ko. bu bokkee sa parti su su nekkee sa sympathisant wala mu bokk ci sa parti. mais loi bi da koy bañ. waaw ah, d'accord mais loi bi da koy bañ. ok d'accord nga ni d'accord nga ni loolu loi bi daf koy bañ. waaw loolu loi bi daf koy bañ mais li loi bi bañul ministre de l'intérieur dugal ko ci mooy dafa wax ne financement bi bu jógee à l'étranger ñëw ci yow rek. finance boobu loi bi da koy bañ c'est pas exact c'est pas vrai tey sénégalais bu tudd Moussa jóg dëkk Paris wala nga tudd Ablaye Ndiaye dëkk Abidjan yaa ngi à l'étranger waaye sénégalais nga lan moo empêché nga am sa benn dix mille francs yéene ko sa candidat boo xam ne sénégalais la nga jox ko ko. sénégalais buy jox un candidat sénégalais di jox parti boo xam ne Sénégal la nekk kooku nekk élection euh, présidentielle wala législative Sénégal loolu loi terew ko mais gis nga si suñu bëgg a jàmm ak bëgg a jël suñu doolee jox ko askanu Sénégal pour nan lañ leen wutee ay solution seen ay problème bañ ñu ko waxee dañ ne tam dindi nañ ko. xam nga ñun nag vraiment ñu ngi wut jàmm parce que dëkk bi foofu la toll ragaluñu nag ñun ragaluñu xam nañ su ñuy droit xam nañ ni leen ñi di def mais nag dëkk bi yàlla dafa def ku nekk ak sa approche. Abdourahmane Diouf ak ñi mu àndal noonu la ñuy liggéey. donc bi ñu joxee deux points yooyu ñun ñu wut ci jàmm arrêté ko loolu ëpp naat ëpp naat man xool naa. délai yi ñuy joxe parti politique yi récépissé mais ñun samedi passé mais dañu xëy ñu ne avant ñu def forum inondation bi nañu seeti ay nit ñoo xam ne ñu ngi nekk Pikine maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp ñun ñu ànd ak ñi nga xam ne rek ñoo dëkk Pikine caravane ñu defuñu dara suñu oto yi boo xoolee ak sama bos peut-être ñeenti oto ñoo ci àndoon muy juróom ñoo xam ne ci dëkk bi lañ dëkk da ngay génn kër Abdourahmane léegi nga caravane de non loolu du woon caravane ni sa oto boo ci boolee beneen léegi mu nekk juróom waa ñi waa juróomi oto waaw non waaw moo tax d'ailleurs policiers yi même bi ñu ñëwee parce que ok mais jàppal ni léegi nga caravane de kon d'ailleurs policiers yi bi mu ñëwee loolu laa leen doon tooñ dama leen ne en droit mhm. à partir de ñaata oto ngay wax ne caravane la. parce hmm. que caravane benn oto la ñaari oto la ñetti oto wala ñeent xam nga loolu droit waxu ko mais bi ñu ñëwee dañu arrêté nañu dañu jot ay ay ay mesures yu ferme yoo xam ne lii ngeen def nii ñun caravane lañ koy woowee dangeen ngeen koy arrêté. man j'ai pas compris ma ne leen fan ngeen ko teg mais xam nga dëkk bi fi mu toll nii. c'est que bëgguma man dara loo xam ne. dafay étincelle ba dafay tàkk Abdourahmane taxawal. Mhm. yow sa parti jotagoo récépissé. waaw bon fan nga mën a teg kon di caravane di ànd ak ñaari oto ak ñetti oto. bon déjà dama jàpp ne caravane. ah non non non non xaaral non dama ne. Uh-huh. yow yow jotaguloo sa récépissé. waa xam nga. cest à bu ñu loolu loolu rek yow. Ah, personnellement uh-huh. yow. yow uh-huh. fan nga teg par exemple war a mën a ànd ak benn oto ak ñaari oto naan da ngay wër Pikine wala da ngay wër feneen. dox mbokk. non. <laughs> waaw Pape Pape Pape yow booy dem gént tey non waaw déglu ma rek booy dem ngénte wala ngay dem sa cousine bu ñuy mayee wala quelque chose comme ça yow rek boo génneeg sa ñaari sœur ak sa ñetti cousine mat ngeen cinq oto loolu c'est privé caravane kay li ma xam parce que nag def naa ay caravane xam naa caravane caravane bi ma xam mooy nga dajale ay 10 oto ay quinze oto takk ay gyrophare def sa ay feu de détresse di perturber dëkk bi mais ñun defuñu loolu mais encore une fois ma insister waat foofu ragaluñu mais bi policiers yi ñëwee duñu ko wax bon de policiers très sympathiques d'ailleurs wax dëgg yàlla ñëw correct wax ñu ko ñu leen ah bu dee da ngeen jàpp ne lii mooy caravane man d'accord ma ne caravane la mais ñun lan ngeen ñuy proposé ci la ñu waxtaan ba juboo ñu ne ñu yow mën nga continuer sa ay visite mais oto yi moom nañu tas donc oto yi tas gis nga pour te dire rek lii yëpp dama koy nettali te dal ñu fi daaw législative ah kenn waxu ci lu bari daaw Tamba dañ ma téye <laughs> ma waxtaan ma dem Kolda ñu téye ma ñu dem Ziguinchor ñu avertir commissaire bi balaa ñuy ñëw Ziguinchor dañu obligé arrêté xam nga moo tax ñun opposant ñun dañu doon opposant boo xam ne du ñu faral di yuuxu mais li ñu teg suñu euh, bopp quand même bari na loolu tam bëgg naa sénégalais xam ko ah, ah, saaguñu ci euh, xastantoo ñu ci yuuxoo ñu mais baax na gaa yi xam ko Abdourahmane est uh-huh. ñu lay teg yëpp mm-hmm. du ñàkk xam fi nga war a yem ak fi nga warul yem. moo la koy yóbbee est-ce que du ñàkk xam. sa ay yelleef moo la ko yóbbee. déedéet man samay droit xam nga parce que parce que parce que non est-ce que du ñàkk koo xam. moo la koy yóbbee. gis nga yi ma la fi expliqué nii yëpp. waaw muy récépissé parti bi jàmbaar yi euh, financement étranger bi euh, Kolda Pikine policiers yi fi ñu arrêté yëpp yooyu yëpp xam naa exactement nan la ko yoon doxalee te amu ci benn boo xam ne ñun dañoo juum. waaye nag man damay insister ni ñun ay ay nitu responsabilité lañ am na dëkk bi foo xam ne bu fa tolloo am na yoo xam ne da nga koy bañ. Ah. ñun noonu la ñuy doxalee. parce que ñun dañu bëgg a yor Sénégal te bëgguñu yor Sénégal ci fitna. Ah. loolu mooy suñu approche. keneen am na beneen ah, approche keneen am na beneen approche. loolu mooy suñu identité man Abdourahmane Diouf. di wër jàmm pour bu ma yoree Sénégal mën ko teg ci jàmm. d'accord mais nag. xaar ba jot sa récépissé gënul woon mais nag il faut il faut savoir il faut savoir n'a rien fii amu fi benn récépissé. waxuma fii man yow laay waxal yow. kese laay waxal waxuma kenn non activité yi ñuy def ñun. laajul récépissé. kaay ma jox la un ou deux exemples. ñun dem nañ élection législative. Mhm. bokk ci aar Sénégal amuñu woon récépissé parce que loi bi li mu wax mooy na ñaari parti politique yu bokk ci coalition jël ko gàddu ko gàddu ko mais tey waaw même APR bi nga xam ne ñoo yor réew mi mhm. mais ñoom demeewuñu seen récépissé pratiquement parce que coalition la ñuy demee mhm. bi loolu d'ailleurs dama koy wax. non non non Sénégalais yi ñuy jàppale ak suñuy militants waxuma ci am benn eh, inquiétude man ci animation politique bi laay wax man waxuma si si si élection wala ci leneen. Mhm. élection yi moom xam naa ni mën nga bootu ci beneen récépissé. Mhm. wala nga loué récépissé. Euh, récépissé nga def leneen nga dem se yoon. tout à loolu waxuma ko. li nga xam ni moom laay wax mooy sa animation. parti mhm. politique. laa ni est-ce